seen xarit Babacar Diop Thialwer moo leen di nuyu fii ci Mourchid TV la chaîne de valeurs mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sakku ci yéen maa ngi leen di nuyu di ñaan jàmm ci réew mi e, di ko ñaanal ñépp képp ku nekk ci jafe-jafe yal na ko yàlla teggi ci yow képp ku am yéene bu rafet yal na ko yàlla mottali mbokk yi e, seen émission Thialwer dellusiwaat na tey. ci ni mu baaxoo di def àllarba ju nekk ci waxtu wi ñu fas yéene jàkkaarloog yéen léebal leen cax leen laaj leen ci ay baati wolof yoo xam ne dañ koy faral di faram-fàcce mbokki téléspectateurs yi kon euh, li ñuy def rek mooy euh, dugg ci suñu mbokk yi nga xam ne dañ leen koy jagleel saa yu nekk ci émission bu nekk euh, di ci jiital rek mbirum Jóob fële ca Màkka Jama waaye euh, di ci teg ki nga xam ne mooy Souleymane Gueye Colobane professeur Boubacar Cissé fële ca Tëngéej Baye Maka Ndiaye Cambérène du ñu fàtte tamit Marcel Diène jàmm gën waaye euh, du ma fàtte képp koo xam ni da safoo suñu émission di ko seetaan nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew euh, am na mbokk moo xam ni ñu ngi koy wax El Hadj mu nekk chauffeuru Serigne Ismaïla Diouf dëkk fële ci Daaru Salaam moom daf may faral di woo ci biir ak ci biti di rafetlu émission bi du ko tardé day toog sax di ko enregistré El Hadj Dame ñu ngi lay nuyu lu baree baree baree bare euh, duma ma tamit ay sama ñaari réalisateurs yoo xam ne tey keroog du ma leen woon muy le jeune Ablaye Kane un grand grand réalisateur nekk fii ci Dakar ak euh, Abdou Khader Ndiaye moom tamit di leen nuyu di ñaanal tous les réa parce que ñun nag acteurs yi réalisateurs yi suñuy xarit lañu suñuy collaborateurs lañu di nuyu tous les artistes comédiens et les du Sénégal mbokk yi maa ngi nuyu euh, tund yu bare ci Sénégal euh, rawatina tund yoo xam ne Saalum la Mbos ak dëkk ko wër soo ko waxee du mu fàtte Daara Mbos waaye du ma fàtte tamit. dëkk bi nga xam mooy Gouloukoum Fass Gouloukoum Borok Noor ne xëccaat ba ñëw àllu ki Touba Mbéla bi jëm mbir kilaan Fass waaye it du ma fàtte dëkk boobu nga xam ne mooy mbir kilaan ngàcc ci naw de nuyu naa leen waaye maa ngi nuyu waa kafrin di yéeg ba Ndiobène Sambalaam ma nuyu leen nuyu waa Ndioum Gent tëb nag ca peelu fële di daar mi nam saalum nuyu leen waaye wàccaat tuuti ñëw ba mbaabaan jaar xurulum bi kër Samba Atta Ndiaye nuyu naa leen ñëpp mbokk yi di nuyu waa Basang gi ñu samay xarit yoo xam ne foofu lay faral di toog di waxtaan ñoom eh, di nuyu ki nga xam ne mooy kilifa ga di Bini Ñing ak rakam Pape Ñing fàttewuma kenn kenn bàyyiwuma kenn kenn magay ñi ngi ñu ngi lay nuyu lu bare bare bare bare waaye di nuyu Xadi eh, Njaay di nuyu Anta Diop di nuyu Siré di nuyu xale yépp di nuyu tamit Madické Fall Ndaga di nuyu Ablaye Fall du ñu fàttee le chef de quartier ñu koy nuyu moom tamit Malick Dieye waaye di nuyu waa kër Aladji Mas Fall Thiaroye Kaw 2 suñuy mbokk nekk fa di ci jiital rek sama bàjjen Fatou Diop di nuyu sama cousin El Hadj Fall euh, bu nekk fële firikatu gént ci taw yi damay jaxase nag turu télé yi parfois euh, télé boobu yi dana Tawfekh Rawaay du moom di nuyu nag mbooleem animateurs yi nekk ci télévision yi mbokki téléspectateurs yi yéen yi seetaan mu TV la chaîne de valeurs dañu fas yéene rek ñëw jàkkaarloo gi yéen nag xañ na indil leen ay cax aw cax wala boog ay laaj yu muy àndal mooy cax bi mooy li gën a gudd ci àddina waaye amul ker àdduna loolu mooy ci gën a gudd waaye amul ker du am ker li muy dugg gudd amul ker loolu mooy caxu tey wi euh, may laaj yow mi jàkkaarloo man te jàpp di dégg nga wolof jal mooy lan jal giit nag ñi daan semb xam nañu ko euh, ñi yaroo àll xam nañu ko jam naa la jal giitoo diir naa la jam naa la jal diir naa la jal lan la ku xam jal giit na ma ko wax euh, le verbe maanaam dama ne verbe la olof da koy faral di wax waaye ci olof laa ko laaj laaj ma ko ci tubaab mboccet mooy lan mboccet mboccet laay laaj bu muy tekki mboccet olof da koy wax su ko defee euh, am na tamit lu am solo ci làkku olof wi mooy xereñ gi olof xereñ ba lu muy wax rek am na firnde yu leer yoo xam ne boo ko ca leeralee ki ko dégg da koy xam mooy gubu mboq xam ngeen ko gubu mboq ni ngay jële sa loxo di tàqale fepp wi ak gub bi nan la tudd ci wolof defe naa leer na de gubu mboq boo ko jëlee ni ngay def sa loxo ba tàqale fepp yi ak gub wi loolu nan la ko olof di wax ma buuñaale nag benn laaj mooy berkelle nu ñu koy waxee en français berkelle aywa jëlal suma numéro serveur 88 628 66 92 euh, ci kanam nag la ñuy ubbi téléphone bi bu ñu jëmee ci léeb bi ba pare mbokk yi su ko defee euh, ñu ñëw rek ni ñu koy defee saa yu nekk rek ci baati wolof yi xam ngeen ni wolof làkk wu rëy la bokk ci na nationale yi nga xam ne fii Sénégal moo ci gën a yaatu moo daj fépp ci Sénégal muy làkk woo xam ne bàyyiwul dara lu la ci réer yow yaa ko xamul wala man xam ko waaye mi ngi ci biir wax na lépp waxee na nu nekk mu wolof kon desul dara manaam manquéwul dara kon lu ci cëkk rek yow mi ko xamul la lu ci sikk dafa am ko sikkal am na règle am gramer am lépp lexique bu jaar yoon la kon rikk waaye nañ koy wax nañ ko jàng nañ ko gën a gëstu xam ni nekkul làkk woo xam ne nu la neex nga koy waxee rawatina bindkat yi ci média yeeg ci mbedd yeeg ci banderole yéeg ci publicité yi olof làkk wóor la wuñ bind woo xam ni am na mbindin woo xam ni euh, homologué nañ ko ba di ko bindee wolof kon bàyyi leen olof yi ngeen di yàq te du ngeen di yàq weneen làkk lu wolof yi ngeen moomul muy tubaab muy espagnol muy arabe muy anglais ba muy français ba muy leneen euh, dañ ko respecté duñ ko yàq boo ci juumee ñu ree la wolof nag war a nekk laa ko xam dañ koy foowe ku jóg rek toog ñu jox la micro ngay wax wolof yu neex baat yi may wax di dugal ci wolof tamit waati tubaab ñàkk bañay yàq li ñuy wooyee communication moo tax ma di ko def mooy ñëwuma fi nguur di tànn ay baat yu seet wecc yu raxul dara yu xóot yu kenn xamul déedéet waaye dafa loo xam ne nag lu ñëpp ñëpp xam lu leer naa ñi kenn du ko fooye li gën a tuuti ci olof mooy article olof daf ko am le la un une su ko defee euh, keroog euh, bi may wax euh, ci fi ma tëjee woon ci benn buntu mooy waxin yi nga xam dañ koy wax ci télé rajo yi te saa yu ma koy wax rek sama xel dem ci benn journaliste Sénégal yu bari xam nañ ko léegi nag ndax dañ may woo di ma lu tax muy wax naa nangam man leen sama yoon nekkul ci moom sañu may toog di ko tudd waaye wax dëgg yàlla ni muy yàqee wolof dafa metti Sénégal yi dégg wolof yëpp nag laa wax te vingt heures bu nekk dana def journal ci benn télévision moom benn problème la am bi gën a grave moom dafa problème boo xam ne ci wolof du baatu tubaab bi muy bërxal wax naa loolu mën na ñàkk bu fekkoon ni nit ñi dégg nañ wolof nañ ko war a déggee waaye moom dafa defee ni olof amul règle grammaticale boo xam ne booy wax dangay am le la un une moom lépp lu muy wax ci olof wa la sant c'est-à-dire mooy article ba xam nga ni su ma nee ak ginaar su may wax bëy dama naan aw bëy du ma wax ak bëy lii li ma koy wax bari na de waaye du ma tàyyi na di ko wax su ma demee ci xar nag am xar laay wax waaye moom lépp olof moom olof lépp aw la double V la jël fëggu ko ci classificateur olof olof daal lépp aw la waaw bu ko defee euh, maa ngi koy dégg bu yàggul rek mu ne mbokk yi am na aw natt woo xam ne ay jigéen ñoo ko tëral natt woowu dana leen dimbali kii seen koom-koom moom tamit ngi jéem a wax olof de mu ni mbokk yi am na aw natt wu ay nit sos natt woowu ku ca bokk dana la dimbali mooy tontine aw natt la wax waaye du natt nag ab natt la natt booba natt bii natt ba yamul foofu muy waxaat di wax di kaas ci benn journaliste bu ñu arrêté su ma juumul Guinée Bissau la doon wax mbokk yi dañu am mbokku taskatu xibaar aw mbokku taskatu xibaar woo xam ne <laughs> dañ ko arrêté fële si Guinée Bissau gis nga wolof baatu tubaab bi wolof di wax sax da koy tëggal article waaw xam nga journaliste tubaab la mais mooy wax sañu maa ñëw nii aw journaliste ab journaliste laay wax yenn saa yi mu ñëw ci géwél day wax am na aw géwél woo xam ni moom daal yoonam moom lépp aw la mbokk moomu nag yenn saa yi am na ñu koy suivre léegi ñu koy suivre di ko toppatoo bu baax di ko bàyyi xel saa yuy wax am na ñu koy bàyyi xel di seetlu loolu te loolu daf leen di sonal loolu jafewul nag dangay laaj am na ñu ñoo xam ni ah, bu leen laajee danañ ko wax wala ñu defal ko formation de base na seet colonel Momar Gueye maa ngi koy nuyu. man nag su may wax ci olof du ma toppandoo tubaab donte mën na maa baat tubaab dama seetlu toppandoo gi ñu nekkee dafa metti mooy xam nga dama ne maa ngi nuyu sama wóllëre colonel Momar Guèye foofu rek laa yam de lu tax ma dagg wax ji foofu dama gis mbooleem nit ñiy wax ci tele yi ak rajo yi su ñu ñëwee ci baat booba dañuy toppandoo tubaab maa ngi koy nuyu de passage man li ma gën a sonal lu tax ñu war a yokk ci baat bi de passage dafa mel ni wolof yi dafa doy man suma doon nuyu sama benn xarit bu ñuy wax a Gueye réalisateur actrice hmm? wala Mamour Ndiaye wala Dame Xannaaji mon ami du du ma ci yokk de passage déedéet man bu ma toogee ci télé di wax maa ngi nuyu niw dama naan maa ngi nuyu Mbay Sàmb du ci yokk de passage lu tax ma di ko ci yokk. maa ngi nuyu Xadi Njaay du ma ci yokk dara maa ngi nuyu Njoogu Mbay dafa matul su ma toogee ci télé wala rajo ma ne maa ngi nuyu diw dafa doyul lu tax dama war a toppandoo tubaab naan de passage <laughs> du ngeen ko seetlu yéen mboolem ñiy wax ci tele yi ak rajo yi su ñuy wax maa ngi nuyu diw il faut ñu nuyu de passage quoi. léegi de passage lan la wuti ci wolof kii làkk ay wolof ne maa ngi nuyu diw lan moo war a tax ma yokk ci de passage xaw ma ko li manqué laa bëgg ngeen wax ko yooyu nag Babacar Thialwer yooyu lay dugg di ko faram-fàccee di ko xool gis naa benn émission bu rëy bu am solo ndax man lépp luy wax ci euh, luy delloo réew mi ci koom-koom ci mbay ak yi ci aju yépp daf may neex dama gis émission bu rëy. buy wax ci agriculture waaye ña fay wax dafa mel ni olof xamul dara ci mbay wala olof amul benn wax bu mën a wax ci mbay moo xam tur la wala waxin eh, dama bëgg ngeen lu baat yi nga xam ne ñoom moom la wax émission boobu ko seetaan dama koy seetaan nag su ma leen gisee damay toog di leen seetaan ndax ñi am solo waaye lu tax xanaa ndax ñoom waxu ñoom olof yi nag ñoom ku ñuy waxal Poutine la ñuy waxal wala Macron xoolal dañ naan Euh. baat yi ngay dégg de semer planter bouturage arrosage ah su ko defee baat yooyu l'agronomie semence xaaral ma delluwaat ci baat yi ngay dégg baat yi baat yooyu kese la ñuy wax ci émission bi ba mu jeex ma delluwaat nga naan ngeen déglu baat yi kuy wax ci mbay mbirum mbay fii Sénégal nga naan semer planter bouturage arrosage l'agronomie semence baat yooyu dafa amul ci olof mais baat yooyu dafa am ci olof amul benn baat bu ñuy wax ci mbay rawatina euh, lu dellu ci baat yu yu yomb yooyu nga xam ni réeragu fi ñu war ko fee bàyyi nga toog ay at di def émission bis bu nekk ñi lay seetaan ñi ci déggul tubaab ñu xam yow yi ngay wax yan la wala boog da ngay tax ñi xaw a dégg tubaab sax dañuy la koy waxee ndax nag léegi am nañu dem ba foog ni baat bi nga wax ci tubaab wolof ay wolof la man dégg naa yu foog ni cent franc la waaw damay dem di jënd soow ci benn xale boo ko nee ñaar fukk mën laan damay laaj daal lu tax ma ne ma ko ñaar fukk laa wax jaay soow ñaar fukk wala ma ni fanweer waaw dama naan ma def ñaari fukk ma ne ko booy moo foto ñaar fukk laa la wax moom dafa jàpp ni cent franc ma yor mu ni ma lu tax waxoo cent franc ko waaye ma ñaar fukki dërëmi soow laay jënd mu ñëwaat ci sama baat yi ma leen wax te muy baat tubaab yoo xam ne dañ koy wax ci benn émission fii ci Sénégal ay ati at ña koy wax li ñuy wax yépp am na solo suuf waxuñu ak Sénégal wala boog waxuñoo ñi déggul tubaab waaw mooy seme planter bouturage arrosage euh, l'agronomie semence olof am na baatu ji am na baatu jëmbët am na baatu njëmbët olof am na suuxat am na jiwu am na mbayum dër mbayum dër waaw baat yooyu kañ bi fi réer yooyu baat réeruñ ci nag te baat yooyu ñoo nekk fii ma leen di wax baat yooyu yëpp bu ci ne am na benn bu mu tolloo ci baat yi waaw euh, semer waaw semer une graine semer nu mu tudd ci du ji semer mooy ji xam ngeen lan la nit ñi di wax léegi saxal <laughs> ñun dañuy dégg waaw soo jëlee sa jiwu nga saxal ko <laughs> man dama tiit te ci mbedd bi ci kër yi ci émission yi loolu lañuy wax nit ku dem bay jàng di wax di faram di leeral mbir mbay ci olof nga toog ci Sénégal naan waaw boo weeree sa gerte war koo saxal <laughs> doo wax ji ji mooy seme wala boobu léegi planter planter boo ko bëggee wax ci olof da nga koy simplifier. planter mooy nga jël gàncax bu jëlee gàncax goo xam ne gàncax la ah wàqiwaat ko ci suuf duut ko fa maa ngi ñëw ci baatu bouturage boobu ñuy wax mooy soo daggee say banti ñambi yoo xam ne da nga ko war jëmbët baat yooyu bouturage bouturage la tudd waa léegi baat yooyu bu dee gutturaan la tudd mooy am njëmbat baat yooyu am njëmbët la nga dem nag fekk suuf sa nga wàqi di ko fa def yaa ngi koy jëmbat plante kay mooy jëmbat rek kon wax naa leen ne bouturage mooy yépp gàncax koo xam da nga koo dagg ne moo xam lu mu doon nga yor ko ngir jëmbat ko fenn tubaab bouturage la koy wax léegi nag arrosage arrosage yi ko ko foo ko xamul fii senegal arrosage waaye waay waaye arrosage mooy suuxat arrosage boo ko suuxat ci olof loo koy wooyee suuxat kañ la fi jógee nga ñëw agronomie waaw agronomie bul sonal nit ñi waxal mbay rek ah euh, bu la bëggee sonal boog nga ne mbayum dër mbayum dël wala mbayum noor ndax nag olof dafa xereñ ci wax ba am na foo xam ne boo fa demee ay baat yu baree bari nga fay am yu bokkul waaye fu nekk dafa am lu tax olof waxee ko fa nii léegi nag semence mooy lan ci olof waaye semence xam ngeen ko waaye semence mooy jiwu waaw man mi toog ci télévision ji dama fay weer may wax ci réew mu ñu woowee Sénégal koo wax olof mu dégg la ñu fi dégg tubaab tuuti lañu moo bëgg a wax aw jiw naan semence te kat boo demee politicien yeeg waaw politicien yeeg waaw bu ma jeexalee fi ñëw dem ci léegi politicien yeeg technicien yeeg de de kii yi lañ koy waxee yi nekk ci liggéey ci agronomie ci mbay ak yëpp loolu la ñuy wax semence waaw semence bi te tey ren dafa tardé <laughs> waaw dooni jiw wi dafa yéex a ñëw jotaguñ ko kon mbokk yi euh, ñu dem déglu jëngal bi te ñëw ñëw yéen ci léeb bi aywa. daan na fi am mbokk yi am na léegoo xam ne tàmbali woon nañ ko ak yéen ay bës ba lay weesu muy léegoo xam ne day wax ci kóllëre waaye lëb léeg bi nekk ci diggante lëg ak bukki ba ñu juddoo ñoom ñaar doon silmaxa xaj bu jëkk bi lañ leen waxaloon waaye dañ leen di fàttali fi ñu yemoon ñu door ci ñaareelu xaaj bi mooy ñoom dañoo àndoon di jàppalante waxoon nañ leen ni leen suñu àndee di rëbb lu ñu rëbb dem bokk ko waaye ñoom ñaar ñi boobu ay silmaxa lañ ñuy lët ak bukki ba bis bi ñu foree ak mbiib ak tuxura nii yàlla def ah, ba ñu demee toog fenn di waxtaan foofu la jeexee woon bukki jekki-jekki ni ak ah, xaaral ma wal mbiib juwaay ba mu nee pirip rek benn bëtu ndeyjar ba ni xifee xool muy ay waay lépp maa ngi gis lëg tamit daal di wax ak moom kàddu yom waxante moom ni ko waay jox ma ma nit ma mbiib lëg jox bukki jox ko mbiib ba lëg ni priit moom it bëtu dee ni xifeet mbokk yi fi ñu tàmbalee tey nag mooy ba lëg tàmbalee tëb ni day bég day day wane mbégteem bukki ni cëfit mbiib ga ni ko jox ma waay ma mbiibaat ba xam lan mooy xew lëg bukki jëlaat mbiib ga ni priit bëtu càmmooñ ba ne xifeet xool bu ay waay xee lii day kéemtaan la ba mu juddoo ba tey tey laay mos xool ak ñaari bët li xew ci àdduna bukki ne leen ni ko ma de maa ngi gis garab yi ñu jekk rafet tund yi ak mbartal yi janj yi picc yi ak lëppaal pii ñaaw ci biir ñax yi bukki daal di jekki rek fëx daw bàyyi fële ma ngay daw ndax mbégte di daw di yéeg ci kaw janj yi di cëppeeru lu mu romb fàdd lekk si ndax ak kañaak yal bu tëg lu ne ay naat ak dafa fàdd di lekk ba suur këll ndax nag silmaxa ga dañ na ci moom mu daal di waaxu wat egg ci genn keru garab toog waaw ngay raay biir ba nag lëg daal di waaxu moom tamit ba fekk ca keru garab ga yi ni ko ay bukki yow ëf nga benn yoon ëf ñaar yoon doo ma jox ma ñaari yoon ndax ma xam ma ne sama beneen bët bi dana gis wala déet bukki ni ko jàkk ni ko mais ni koy ñaawal ni ko lëg yow ba nga juddoo ba tey dangaa silma tey nga fexe ba sa benn bët bi di xool nga bëgg cee yokk dara mane ne lëpp bàyyil koo nekkal wala koo àndal rek lu mu am nga bëgg koo ama ah? ma yamal ci sa benn bët boobu doy na la sët lëg ni ko bukki bul fàtte ni man ak yow ba ñu juddoo nekk ay silma dañ doon ànd di def lépp te yow man dama la daan dimbali ndax man maay kii daan dégg lu ma dégg ci àll bi muy ñox-ñoxi damay xam fi mu féete damay xeeñtu ba xet gi xeeñ moom moo wax leen la jaaral fii ci noonu lañ daan rëbbal kon lu ne defal naa la ko sama xarit bi yow tamit fàttaliku loolu bukki ni ko euh, loolu ngay wax xam naa ko waaye dama bëgg yow lëg nga xam bis ni ki tey ni man soxlaatuma daray kenn maa nga ne jar di xool mën na maa rëbb am naa doole soxlawu ma ndimbalal kenn waaw kay lëg ni ko bukki bul wax loolu fi ñu jaar man ak yow mënoo koo ëf rek mu raaf maanaam mënoo koo effacé na nga fàttaliku bu baax ni am na fu ñu jaar man ak yow waay waay waay jox ma mbir gi ma ëf man dama bëgg sama beneen bët bi xippi sama xarit bi bukki ni ko eh sànq ba tey yaa ngi wax di su baat boobu naan sama xarit eh lëg duma sa xarit kenn musul a gis ci àdduna xaritoo gu nekk ci diggante bukki ak lëg xam nga bukki lan la séq ak lëg lekk kese waaw ah lëg nag daal ñu ko jàkk xool ñu ko bukki mbaa sa xel nekkul ci nga lekk ma ak fi ñu jaar man ak yow bi ñu nekkee xale ba léegi bu ni ko ah sama xel mi day mu ngi ci lekk la de xam nga lu tax man daaw ma gis waaye léegi ma ne jàkk di la xool damaa gis sa yaram bi ni mu nayyee sa lex yi sa fallare ji ni mu mel ni nga duufe bu ma la xoolee xam ni yow mii ko duuf nga bu ki ni bëri tàmbali di làmb lëg naan ko waay yow sax te yow sax graisse gi ci seeram bi ni ma ko daje ku koy lekk doo sonn yow ku lay lekk buy yéey day nooy si yow mii yàpp wu neex nga yor rawatina bukki boo xam ne nag benn bët la yor dafa pat te maa ngi ni jàkk di la xool léegi ah lëg na tiit ndax ni bukki di waxee ak moom ak di mu commencé di ko làmb léegi ni ko monté day euh, li ngay wax ni sax man ànd naa ci ndax man sama ëllëre ngay masa doon léegi nag xam nga lan laa bëgg Euh, man nangu naa saa yoo bu ma waree lekk nga lekk ma waaye bukki yow xiifaguloo fi bi ngay daw di ma bàyyi lu ne lekk nga ko da lekk ba suuf tëdd kon kay xiifagoo ginnaaw xiifuloo nag soxlaa goo nga di ma lekk xam nga na nañuy def man nangu naa ànd ak yow foo jëm ma topp la bis boo demee ba ñu rëbbi nga sooy su keroogee mën ngaa wëlbatiku la neex nga def bukki ne <laughs> léegi muus de li nga wax dëgg la waaw léegi loolu nga wax xel mu rafet la tey moom waxi dëgg nga wax léegi nag xam nga nan ngay def toogal fii man ak yow fu ma jëm nga jëm fa maa ngi lay bàyyi xel nag mbokk yi fii la ñuy yemale ñaareelu xaaj bi ba beneen yoon ñu dikk ak yéen ci bukki ak lëkk fan la ñu jëm aywa ñu dem régi del si waat diggante bukki ak lëg bi ñu juddoo doon ay silmaxa doon ay xarit jigéen seen ñaari jaar-jaar yooyu ci ñaari xaaj yi leen jot a jox incha allah bu ñëwee bii ñëw ci ñetteelu xaaj bi mbokk yi dañuy ubbi téléphone bi nag waaye dañ leen di fàttali euh, caxu tey wi ak laaj yi mu àndal caxu tey wi mooy li gën a gudd ci àdduna te amul ker loolu lan la benn bi jal giit lan la jal giit ki ko xam na ma ko wax jal giit lan hmm. la ma wax ne mboccet mboccet mooy lan olof day baatu mboccet ki xam mboccet daf mën a nangam mooy mboccet damay jox benn exemple ni ma loolu mooy mboccet euh, ma wax ni sooy taqale mboq ak fepp wa ca gub wa maanaam bu jëlee gubu mboq nga yor ko nii war a taqale pepp ma ak gub wa li ngay def nu mu tudd ci olof loolu ngay def jafewul de ci ñi lekkatu mboq yi dégg wolof su ko defee euh, moo waxaat ni berkelle euh, berkelle lan la ko tubaab bi wax ki nga xam ne nag dafa am jotu ma woo ci sama portable du ma ko ndax maa ngi en direct nii di mu jàkkaarloo man xam naa loolu tax mu bëgg maa woo kon 88 628 66 et 92 ñuy ñaan nag mbokk yi ku dugg rek euh, bul jéem a wax di déglu li nga wax ci tele bi waaye na nga fexe ba wàññi sa télé déglu ci sa téléphone soo duggee rek day baax aywa mbokk yi kon ubbi nañ téléphone bi 88 628 66 92 maa ngi nuyu suñu mbokk yi nekk ci digital bi aywa kon ubbi nañu téléphone bi laaj yaayoo ngoog juróomi laaj lañu cax wi la gën a gudd ci àdduna te amul ker ñaareel bi jal giit mooy lan mboccet mooy lan ci olof allo allo asalaamaaleykum allo waaleykum salaam. Ah, waaw Babacar la. waaw kooku xanaa Marcel oh. waaw. Boubacar Sow. ah. Boubacar Sow. ah Boubacar eh, eh, eh waa ji nga gëj a dugg ah. na. nga def. sant rek. aywa looy tekki ma wax fii. yoon wala godorong laa ko teg. yow yoon nga ko teg wala godorong. wala godorong. wala godorong. ak lan ak mboccet nag kuy kuy kuy kuy gar duubu. waaw mboccet. waaw. waaw kuy kuy gar duubu moo koy moo koy am. waaw kuy. mboccet. waaw. waaw ñaar yooyu daal la mën a toog. waaw. waaw bëgg nañ ci mboccet bi moo leerul ci man ni mu ko tekkee dégg naa lu njëkk bu njëkk bi li mu ci wax kooku mooy Boubacar Sow nekk fële ci quartier Medina Fall fàttewu ma ko moom day faral daan faral di woote ci émission yi euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu waa Medina euh, Fall bu Thiès di nuyu Aliou Diop suñu goro ak tuuti suñu petite sœur ak doomam yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu waa Thiès yëpp euh, di nuyu njàmme seen mu nuyul ñu waa Thiès yëpp ak tous les artistes comédiens de Thiès waaw waa YouTube ay waa waa YouTube maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm Omar Wilane Aliou Ka ci YouTube bi ak maalik Niang maa ngi leen di nuyu lu baree bari ñoom ñu ngi ci YouTube bi euh, di leen sant di leen gërëm ci dugg bi euh, soo ko defee ñu fàttali numéro bi 88 628 66 92 Moustapha Guèye ñoo ngi lay nuyu lu bare bare bare Etienne euh, John maa ngi koy nuyu suma xaritu artiste comédien ma nekk fële ci cees njukkun maa ngi nuyu waa njukkun yëpp di nuyu Etienne John euh, waaye di nuyu musu jabaxate moom tamit suñu jigéen la Moussou Diabakhate Ngom mu nekk euh, fële ci Thiès ci benn média ak bambara bu dégg olof cees ñu ngi lay nuyu lu bare bare bare di nuyu waa Thiès yëpp di nuyu mboolem collègue yi nga xam ne dañoo nekk ci keppaango yi Euh, bu ñu limee rek manaam du mat waaye ñu rawatina nag suñu mbokk yi nekk Ivan di fa taxaw taxawaay bu rafet ñu ngi leen di nuyu ci liggéey bu am solo bi ñu def ci làkk wi 88 600 allo salaam. waaw eh. waaw kay Diop na nga amul ker. amul ker. yoon. aw yoon. yoon lañ ci waaw waaw. mboq itam boo ko lekkee ba da nga koy jiir jiir. da koy jiir. comme ni ñuy jiiree mbool. comme ni jiir jiiree mbool. waaw mboolu. mboq waaw. mboq dañ koy jiir waaw. waaw waaw. yooyu ñaar daal. yooyu yaay am solo. mboccet nag. mboccet waaw. mboccet moom. dama ca xam daal barewul defe naa daal. waaw fàtte naa ko daal mboccet moom fàtte naa ko daal fàtte nga mboccet. waaw xam naa waaye fàtte naa ko nag. waaw lu koy xam. waaw danaa ko gëstuwaat rek. am na solo bi waaw incha allah. waaw waaw jërëjëf ñu ngi ziar bu baax jërëjëf. ñu lay delloo ziar lu bare bare di nuyu waa Makka Jama di nuyu ñoom Pape Seck ak ñu dëkkee foofu di nuyu mboolem ñu dëkkee Richard Toll. Euh, ak dëkk yu ko wër yépp ci waalo ndombo wax naa leen demaguma fa waaye sama dëkku maam la sama maam Birane Diop moo ko sancoon euh, su ko defee 88 628 66 et 92 bu leen fàttee Berkele mu ngi ci question yi moom tamit euh, su ko defee ñu wéel waxtaan wi rek mbokk yi ci ni ñu ko tàmbalee woon mooy sànq dama indi woon am na ci ligne bi allo allo aleykum salaam. ah Boubacar yaa ñëw. waaw damaa mel ne déggoo woon dafa xawoon leerul. waaw waaw maanaam sa ñaareel wax moo leerul woon ci man. waaw mbocce daa mooy mooy dugubu gubu mbokk yu ndaw yi. ah dugubu mbokk ndaw yi. moom lay wax mbocce. mbocce waaw waaw waaw. lu amul kenn nag moom yoon wala doroom rek. waaw bég nañ ci yow lool min weltiemaare Boubacar su ko defee ñu ngi koy bégee bu baax moom Boubacar Sow ndax moom wax yàlla euh, day dugg ak euh, détermination day wax day waxaat day dugaat euh, su ko defee rek mbokk yi ñu ñëw ci baat yi nga xam ni tàmbali woon nañu di ko faram fàcce te muy ay baati olof te moo wax ni làkk wi buñ ko bëggee sàmm suñu bëggee ndonali dëgër suñu bëggee li ñuy wax dëppoo ak li ñuy jëf faaw ñu bàyyi xel aw làkk làkk mënul ñàkk ci xeet woo xam ne dafa bëgg a fàttaliku mbatiitam ak mbooram allo allo waaw kooku waaw Amadou waaw ah Birane Diop mooy sama maam de. ah Birane waaw mooy sunu maam. ñun waaw waaw les sant Diop yëpp Birane Diop mooy suñu maam. ndeysaan bi loolu am am na dëgg. waaw waaw loolu leer na kon noo noo noo bokk maam. waaw waaw. noo bokk maam ci wàllu bokk ko ci Njàmbur. wallaay ndeysaan. waaw. waaw bokk ko ba ca Ndakaaru. ba ca ah, Jal Diop. wallaay ci Jal ah, Diop waaw waaw. waaw waaw waaw baax na waaw. loolu am na solo. bëgg na bëgg nañu lool. ndax nag eh, ñun càll weer bu ñu neexee tey toog ci télévision bi mel ni kuy tiitaru wax ni ñun ñooy Sénégal ndax ñun dañoo jóge ci askan woo xam ne wii eh, ñi ci siiw dañoo bari wax mu Birane Diop bu ndombo bu ñëwee mutu fa ngay dikkee euh, sëtam yi am ci senegal réew yu baree bari ci njaa euh, dëkk yu bari ci njàmbur ay tund yu baree baree bari ba nga wàccaat dem Saalum yéegaat ñëwaat fii ak yeneen i gox yoo xam ne jàpp ma leen ci biir euh, waalo wenn menn maam la wax maanaam jenn maam moo leen meññi ba pare meññet moomu dafa tasaaroo fépp dégg nga ni mu ko waxee ci Jalle Diop ñun ñooy Sénégal ñun Diallowerma parlant ñu ñooy Sénégal 88 628 66 et 92. su ko defee rek sànq moo wax ne ah réew su bàyyee làkkam rek day réere yu bari ci culture ak histoire am maanaam mbooram ak mbatitam su ko defee damay baamtu nag damay bëgg yenn saa mu mel ni benn. kuy joxe bind maanaam day kuy joxe benn leçon ndax dafa yoo xam ni émission bi dafa leen intéressé daf ñu daf ñu daf ñu ñor ndax ñun maa ngi dugg lu bari ci oto ñu ne moom déedéet yow doo fay ndax gis nañu li ngay def am na mbokk moo paasal ci Dakar dem dikk bu yàggul loolu la ma wax et pourtant et pourtant li ma neex ci acte bi mu def moom neew ma toogal buy bul fay dafa jël ticket hmm. jënd ko jox ma ko loolu rëy la xale bi fàttali naa turam lu am solo la mu ne ma sëñ bi yow Sénégal dañ la amee njukkal donc maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne dañuy jàngee ci émission Càlloo Yaar moo tax su may wax yenn baati wolof yi du ma tay di ci dellu siwaat ndax tamit ñun bokk na ci li tax ñu tardé ci yenn yi lu nekk dañ koy bëgg cof rek dem maanaam adduna bi doxin lu muy dox moo doy waar mooy taf taf taf yëngal fër dem dem fu ne fu ne nga tëb dal fa fu ne nga cof moo tax li ñuy duñ li ñuy duññi du mokk moo tax buñ ko waraxee fa muy dem du fa jariñ dara wolof bi laa lay waxal su ko defee duññi nag mooy ruminer en français ginnaaw fii France mooy colonisé woon te làkku français dañoo jax dañoo jaxasoog dafa jaxasoog ñun dañ ko bàyyi xel bu baax man bokkuma ci nit ñi boddi tubaab xalaatuma ko sax rawatina tubaabu France xam nga réew boo jaxasoog moom ngeen dund lu ëpp juróom benn fukki jaxasoo ngeen jaxasoo boo xam ne loolu ci seen mbatiit la bokk ak seen mboor loolu aw las la ci suñu cosaan mooy suñu jaar-jaar ak France kon suñuy doomu ndey lañu suñu frère lañu euh, ndax képp ku dëkkee ci plan bi ñu nekk rek na nga xam ni boo dee doomu aadama war nga bàyyi xel sa morom mu doomu aadama ndax mën ngaa def dara ca Mexique wala ca Russie wala Ukraine muy yëngu di yëngu baax si fépp ci àdduna bi kon bàyyente xel boobu mooy li war ndaw ñi te ñu bàyyi boddente xeet nañu moytu naan Afrique waaw dañoo war a def lii ñi koy wax dañuy tardeel Afrique bañ ko dalee di wax ñun ba ñuy xale ba tey génération bu ñëw rek ci loolu Afrique waaw ñu naan africanité ñu naan waaw l'union africaine la fi muy amee solo du fi ñu koy wooye mooy ñu booloo am ku ñuy boddiku déedéet ñu booloo am ku ñuy xëcc ku ñuy bëmax déedéet bu ñu Afrique bu ñu booloo woon ba pare feeg booloo wuñu ak yeneen continent yi du amal njëriñ àdduna bi àdduna bi weesu na ñi bokkatu fii di def li ñuy def di xuloog ñële te am na ñoo xam ne ci loolu kese la ñuy dox mooy réew bu nekkee réew mu ñu woowee Sénégal yàlla wàcce fi kilifa yu baax ñu def ay ñaan yu baax nga sësaloog ay nangami réew ci sa kanam yoo xam ne géej gi moo la boot ci gannaaw réew yooyu yëpp ay xale yu ferul iji ñoo jël nguur ga di wax rek ñooñu bëgg la influencer loolu jar naa tiit de ñu yow yaa leen ëppale lépp yaa leen ëpp xalaat yaa leen raw sur tous les plans wax jooju ma sonn di ko wax de Sénégal lépp lu ñu fiy jàmbat ci àdduna mi ngi fépp nañu bàyyi di jàmbate Sénégal oh Sénégal du Sénégal da nga ne àdduna waaw kay walla dund gi ndax xale bi xàmmeewul kat su juddoo ba am fanweeri at tog ku mu toogal yaa ngi jàmbat di di teg turu Sénégal seen jàmbat la mais day jàpp ni Sénégal rien ne marche loolu la def ci ko bopp bi day jàpp ni ailleurs tout est bien subconscient moo koy jox ni ku génnal réew mi looloo tax xale di téye 6 millions 5 millions 7 naan day génn réew mi dugg gaal di xaru nañu bàyyi xale yi ñiin wax nës nësalal wax ji di leen li ngeen di def amul benn raison dañ leen ko wax amul benn raison lay wi jubul waaw damay dimbali sama yaay dama bëgg a tedd dañoo amul liggéey amul menn réew mu peeg liggéey ba amul chômeur amul te am na xaas boo xam ne ko di génn réew mi xamoo sa bopp ndax boo ci liggéeyoon da am lu ëpp mbokk yi wax naa waxati waxati duma son mukk di wax te bu may wax nag wax ji ma ñor ngir xale yi dégg ko damay waxi tubaab ba géex ndax la répétition est pédagogique gis nga marchand ambulant bugguma toog fii di tudd kenn waaye diw marchand ambulant la woon milliardaire la tey diw marchand ambulant moom ambulant la woon milliardaire la ñu ngi fii Sandaga ñenn ñaa ngi Sandaga ñenn ngi feneen diw moom la woon kon ñii gàddu seen bagage yi di topp mbedd yi ëllëg ki si am na ñoo xam ne ay milliardaires lañu nañu bàyyi xel loolu. mu ñëwaat rek mbokk yi 88 628 66 et 92 caax wi mooy li gën a gudd ci àdduna te amul ker dañ koy gàttal nag Serigne Mbédou ñu ngi koy wax gudd amul ker waaye dama ko bëgg wax ci wolof yu leer lu moom moo gën a gudd ci àdduna waaye amul ker jal giit nañ ma wax lan mooy mooy jal giit wax naa leen ni sembkat yi dañ ko daan way jam naa la jalgitoo diir naa la waaw jalgit mooy lan nag ci dugub pourtant am ci dugub loo xam ne jalgit lañ koy wooyee mani le verbe maanaam ci olof nag laa koy wax ndax mu gën a leer laaju ma ko ci tubaab mboccet mboccet lan la mboccet olof day wax mboccet da koo mboccet ma yokkal la ci loolu sax eh da koo mboccet xanaa war ngaa xam kon lan mooy mboccet ya da koo mboccet mboccet baatu olof la ma ne la booy tàqale fepp yi nekk ci mboq gubu mboq ak say baaraam langay def nan la tudd ci wolof yooyu yëpp dañ koy bëgg a fàtte léegi beneen bi ma ne encore bii moom mosoon na fi jaar berkele berkele en foncé laa koy laaj 88 628 66 et 92 sànq nag ma ñëw rek ngir baamtu baat yi nga xam ne dama koo tàmbalee woon tam mu ñor ma lool te mooy nit ku toog ci télévision di def émission émission boobu nekk ci réew mu ñu tudde Sénégal ngay wax wax ju am solo jëme ko ci mbay rawatina mbay moo xam ni mbayum dër la wala boog mbayum noor ngay wax te baat yi mënoo koo génnee ca la ngay wax waxatoo ak senegal yi déggul wolof xaw ma nag ñu dégg wala waaye baat yi moom feeg yaa ngi koy wax ci biir émission waxuloo ak senegal yi déggul tubaab te baat yi mooy lan semer planter bouturage arrosage agronomie semence te baat yi nekk ci wolof ma jaaraat ci baat eh, yi yépp ñu ngi fi wala xam na luy ji muy salaam mbokk mi. maa ngi ziar. maa ngi lay delloo ziar tur bi ak fan ngay maa nga Modou Ndaw Saalum ah Modou Ndaw waaw Daaru Saalum Saalum Saalum waaw yëkkati baat bi tuuti nag mbokk mi ah, mooy mboq bi ngay laajtee noonu ah affaire bi ngay laajtee noonu xam nga mboq bi xaw ma laaju mboq de mboccet laa mboccet lu muy tekki ci waaw kay waaw damay bëgg ñuy teewlu laaj bi mboccet laa wax mboccet mooy lan ci wolof mboccet mboccet verbe la ci tubaab bu doon boolee ci tubaab mboccet loolu verbe la ci wolof ngir ngir ñu dégg bëgg a xam li mu bëgg a wax waaw mbokk mu ñëwaat rek sama baat yi ma nekkoon ma ne leen kon baat yi képp koy wax ci benn émission ci Sénégal tey wax ngir Sénégal yi jariñoo ko génnee nga ca ñi déggul tubaab mooy ngay wax ci mbayum dër naan semer planter bouturage arrosage l'agronomie semence wax loolu Sénégal yi déggul olof de déedéet ki déggul olof da nga koy wax ji jëmbët waaw di ko wax njëmbët gis xam nga jëmbët ak njëmbët bokkuñu de njëmbët tur wi la mooy li nga jël war koo jëmbët yi am njëmbët la jëmbët mooy le fait le li ngay def mooy jëmbët faaw ñi kon jëmbët njëmbët suuxat mooy arrosage mooy wax dëgg yàlla yomb na jiw mooy semence jiw waaw su ko defee mbayum dër nag moom la ñuy wooyee fii yenn saa yi ñu ne agronomie yenn saa yi culture maraîchère waaye moom daal mooy mbayum dër wala boobu mbayum noor mbokk yi mu ñëwaat ci benn baat boo xam ne ci yooyu lay dellu mooy culture sous serre dafa bari léegi culture sous serre maanaam day day commencé di bari bari bu fii nag Afrique euh, mooy mbay mbay moo xam ne am am na koo ràbb ci wolof ba mu leer nañ ñi euh, bu la neexoon da mbay muñ mbaaral wala mbay ci ronu mbaar mbay moo xam ne ka koy bay dafa defar mbaar mu rëy ba pare di bay ci ronu mbaar ma culture sous serre bu ko tubaab de wax mooy tool yooyu nga gis ci réew tubaab yi nga xam dañuy lal ay lu mel ni ay tànt rëy ba pare di bay ci biir culture sous ay waaye bay mu ñu baaral la kat wala dañoo guuta wolof wala wante dañuy génne nga ni mbay ci ronu mbaar mbay mu ñu mbaaral wala mbay ci ronu mbaar soo ko waxee wolof bi day xam ne nga bi dégguloo tubaab mosoo gis sax nekk ci àll bu wow ba di ci bu sore bu boog di di liggéey boo ko mbay ci ci ronu mbaar da da naan mbaar lu ñu bay ci ronu am mbaar ndax mën naa am xamagu ko gisu ko ci internet bi nga ne ko moom la tubaab di wax culture su serre su ko defee ah da ngay faral di dégg saa yu koy waxee dañuy wax quels sont les avantages de cultiver sous serre waaw yan ñooy ngënee li mbay mu ñu mbaaral mbay moo xam ne dañoo mbaar di bay ca roon mbaar ma yan mooy ngënee lam ñu naan la ke ñu koy wax ci télé bi loolu leen wax quels sont les avantages euh, de la culture sous serre la nañ koy waxee de ko defee yow waxatuñoo wolof bi déggul tubaab te ki ko musul dégg sax boo ko demoon ci wolof waaw mbay moo xam ne dañ koy def ci ronu mbaar wala boog dañ koy mbaaral ba pare di bay ci biir mbaar ma kooku bu waxee loolu rek moom xam na li nga wax li mu soxla bareetu ah kon bu ko musul woon a dégg sax ah kon ndeke mënees naa def mbaar ba pare di bay ca roon mbaar ma bu la neexee nag euh, xam-xam xaralam may na nga wane ko boo amee connexion sax bu la neexee boo dóoree rek nga gis ko nga xam ne ah ñii bay ci roon mbaar kat lii mooy am te dafa am fépp am na fi lool am ko yëgul nag am na fi bu baax gis nga lépp loo gis ci àdduna mu yéeme di lu baax yàlla xam na ni tàmbali nañ koo def fi Sénégal yow yaa ko yëgul rek wala man yëgu ma ko waaw yu ci bare tàmbali nañ ko def du façon nappi nu jën du yari nu jën du mbay mu sophistiqué du lépp tàmbali nañ ko fii ci réew mi te am nañu yaakaar nag ni dana gën a yokk ndax comme dañoo am ndaw yu bees yu dëkk jiite réew mi te am yéene liggéey ah ñu de am yaakaar ni ñoom wax dëgg yàlla euh, foofu dana yomb ci ñoom ndax yanoo guñu woon lu leen di sonal boo dooree ñëw ci réew ñu jox la ko nañ leen ñaanal bu na yàlla defal leen jàmm ba yéene yu rafet yi ñu am ci yëpp ñu mottali ko mooy yooyu yëpp nekk yu avancé te ñu bañ a jàpp nag ni réew àgg na ci avancement ba amul benn problème amul chômeur amul nangam amul nangam loolu amul fenn ci àdduna bi euh, bu ko defee su su ma su ma waxee loolu te fàttaliwu ma li nga xam ne émission bu nekk danaa ko ci waxaat rek damay juum mooy ñu ngi tàmbali nawet mois d'août defe naa suba lay teru de bu ma juumul tey la wala suba mois d'août weer la woo xam ne dafay faral di bari ndox na ngeen bàyyi xel bu baax ni bu tawee euh, dëkk yu mag yépp dina am ay inondation waaye du problème mu Sénégal problème mu fépp la bu ñu ko jàppee noonu rek mu woyof waaw fépp ci àdduna bi ñoo koy ñoom lay dal Guinée Mali Côte d'Ivoire France Amérique Russie fépp Chine day inondé waaw waaw kenn mënu koo réglé ma ne na cee def jéego nag ba ñu xam ne ah fii day wax dëgg yàlla tànne na ndax ñun gis nañu ay jéego yu ñu defoon ci senegal ci ay gox mu xaw a ndax fukki at yi ñu passé wala fukki at ak juróom ci ginnaaw boo ñëwee diggante yëmbal géejaway wax dëgg yàlla am na lu bare bare lu ñu fa def lu wàññi mbirum. Euh, inondation boobu te ngeen di ko wooyee euh, noonu ngeen koy wooyee rek waaw su ko defee mbokk yi euh, baat yi dafa am solo ñu bàyyi ko xel ndax damay dégg ñuy wax sax baat yoo xam ne wax dëgg yàlla ci ñiy wax ci mbirum mbayum dër ak càmm gi dañuy faral di daje ndax yenn saa yi mbayum dër dañ koy lëkkaleeg càmm gi nga xam ne li ngay bay ngooñ ma wala ñaax ma wala xob ya danga koy dundale ay xeeti jur yooyor moo xam sax ginaar la wala leneen léegi bu ñuy wax duñu wax sax jur gi déedéet dañ fay nekk naan les les animaux domestiques <laughs> Sénégalais ñoo bari jot maa nga ca la bañ de maanaam dafa am nit ñoo xam ne suñuy wax dara dañuy jàpp jàpp ni feeg waxuñ ko ci tubaab wax ji dalul waaw boo nee kuy bay mbayum dër su la neexee nga boole ci ak càmm wax nga olof yu leer bu la neexee nga ni nga boole ci di yar ay ginaar wala yarum jën ndax dégg naa bu yàggul nag benn euh, nit kilifa gu doon wax naan mbayum jën wax naa ko fi waxati ko fi ñëwaat ci tey saa yu ma demee ba defee ni fàtte nañ ko rek nga gis ku ni ñoxeet jëlaat baat bi naan mbayum jën jën fu ñu koy bayee mbayum jën nu ko nu ko sénégalais toogee def ab wolof naan mbayum jën jën dañ koy bay waaye jën kay dañ koy yar ni ngay yare xar ginaar muusi ba mu màgg nag waaye jën kay da koy yar ndax luy dund la borom bakkan dee su ko bay nuñ ko foo koy bayee bay gàncax lañ koy def boroom bakkan dañ koy yar ci ci ñàkk bàyyi xel saw làkk ak ñàkk koo jox gëdd tax nga jën loolu metti na trop wax dëgg yàlla xale yi euh, war nañu leen a wutal fu ñuy jànge wolof jafewul de ndax làkk wii ñuy làkk muy làkki tubaab amul dara lu ma leen bañal wala ma jéppi leen non man du ma dox doxuma ci yooyu waaw xam naa li ma dese bariwul tax amul dara loo xam ni jéppi naa ko tubaab bi waaye xool li ñu daj ci làkki tubaab yeeg arab yi ngir man ko waaw ndegam ci làkk yooyu ngay daj door ba mu mokkal ko boo xuuralee baat ñëpp tasu waaye sa làkk wi nga xam ni sa làkku cosaan la doo ko wax ni ñu ko war a correctement nga ñëw naan mbayum jën waaw mbayum jën ñoñ loolu dinaa ci ñëw fii parce que moo waroon nekk kii bi waaye danañ ko tënkaat su ma bëggee wax ñoñ aadama Ndiaye ñu naan njoñ loolu la ñuy wax léegi dañ koy njoñ njoñ Adama Ndiaye ñëwoon nañ fi démb njoñ diw loolu wolof la déedéet ñoñ mooy waa sàngam dañuy wax ñoñ ñoñ nangam ñoñ kenn du wax njoñ njoñ mooy ñu boot say loxo takk ko ci ginnaaw mbokk yi xam naa li ñu desee ci waxtu bariwul daanaka jeex na kon dañu ñëw rek tënk li ñu fi doon wax waaye tekki laaj yi nga xam ne moo fi rotoon su ko defee rek mooy wax naa leen ni baat yi nga xam ne moom ngay dégg ci olof ci tubaab te ñu koy wax ci rajo yi am na semer planter bouturage arrosage euh, l'agronomie semence am na ci olof olof am na ji jëmbat njëmbat suuxat jiwu am na euh, mbayum dër waaw su ko defee culture sous serre mooy mbay ci ronu mbaar wala mbayum mbaar boog mbay muñu mbaar su defee wax naa ni dëgg yàlla les animaux domestiques bu la neexee ah nga ni jur gi waaye ni ngay waxee njaa àll muy rabu àll bu la neexee nga ni njaa kër njaa àll njaa kër jur gi mala yi loolu am na ko fu nekk sa nekk su ko defee mbokk rek ah euh, ñu jéem a tekki ndax am mbokk yi woote woon wax dëgg yàlla ñoom Medoune Boubacar ak mbokk yi woote yëpp tekki nañu lu bàyyi ci li ñu tegoon muy léeb gudd amul ker mooy li gudd gudd te amul ker mooy aw yoon rek kenn musula gis keru yoon waa ngi nii moonte dara duñ ko gudd yi àdduna waaye ni mu tëdd moo tax du am ker wolof ni ngudd amul ker maanaam li gën a gudd ci àdduna te amul ker jal giit nag yow mi daan semb dugub gubu dugub gubu suuna boo ko gisee saaño cat la dara du ca nekk day am cat mu génn nii du am pepp du am leneen cat loolu la ñuy wax jal giit ci olof moom tax ñu moo tax ñu daan woy jam naa la jal giitoo diir naa la jam naa jal giit jal giit mooy loolu mboccet nag wax ju sew la ju niru yomb te jafe soo tegale woon pakatu euh, billet dix mille francs nii muy deux cent mille wala muy million mu am ko ñëw téye xaalis ba fexe ba rocc ci ay këyit da koo mboccet mën naa koo génnee feneen nag ki ko wax ci ki koy wax ci mbokk xam na ko waaye day jafee lijjanti foofu lépp loo fekk ñu tegal nii mu mel ni ay këyit wala yu demee noonu nga nga téye ko fexe ba rocc ca lu ñëw da koo mboccet kon baat boobu mooy mboccet euh, sëriñ Medoune wax na ko keneen wax na ko mooy boo téyee ngubu mboq ni ngay def pepp yi ni ñuy dañ ak sa baaraam jiir la ko olof tuddee jiir jiir la ko olof tuddee mu des nag euh, berkelle kenn tekkiwu ko waaye mooy hybride hybride mooy berkelle hybride nag lu yaatu la mosoon nañ cee wax lu am solo ci olof euh, am na yeneen tur nag waaye berkelle daal mooy hybride waaw mbokk yi su ko defee émission bi bu ngeen ko seetaanee dafa am ñu nekkoon ci ginnaaw Maimouna Gueye réalisatrice eh, Thierno Diank fa nekk ci régie Ousmane Ndiaye moo doon teg décor bi eh, Mapenda Dia technique Makhtar Gueye technique Malick Diallo son waaye mu des beneen Ousmane Ndiaye caméra woman mbokk yi jëlal sama numéro yow ma ko soxla woon 77 043 81 08 fàttewu ma tamit suñu mbokk yi nekk fii ci télévision bi yor digital bi muy Cheikh Niang ak Astou Kane Diop AKD su ko defee mbokk yi euh, ñu ngi leen di dig daje àllarba bii di ñëw fii ci Mourchid TV la chaîne des valeurs.